فصل فصل إن خيف نمرك لأثنى فصل جرح الراس جم جم كتيمم ragal bu demee na ragal ga daan waral tiim musixa masaafat ko nga am tuuti gaañu gaañu day jàpp ba agsi ci bu ndox mi duggee mu am soobal nga taal ni sa loxo ànd gi masaaka bi mun la ci masaa ci kaw luy metti mu ne ko fas lin mu ne ko gàjju boo xam ne dañ ko gàjju nàmpatal wéragul nga ragal ndox dugg ci jëm jëm bi nga masaa ko nga jàpp ba agsi ci masaa ko mu ne dégg nga nga xam ne kon da nga bañ ndox dugg ci nga tooyal sa loxo tuuti rek mu jaar ci kaw ndànk kamaraaratu lu ko noonu wextan ñu taf ko ci jam-jam bi du bëgg mu wér wala bañ ndox dugg ci wala microbe nga masaa ci kaw ba xeepa sudqin ak këyitu su dox mooy fii dañ si tax këyit wala pression ñu doon nga loo xam ne rek koy aar ndox bañ cee dugg ak suuf wala gaañ wala su nàccee taxal sa yére tax ko si nga dal di kii ci kaw waaye imaam si ak meeteel boo xam ne xëy faragaleef na bi na seexaa ci summeem ci dindeem nga xam ne doon boo ko dindee dañ koy raxas waaye ragal nga ne daal boo ko danga laxasoon sa bopp ngir gaañu gaañu wala metit dégg nga te nga xam ne boo ko dindee ragal nga ngelaw ëpp la wala boo ko dindee góom bi xolliku wala ndox ëpp ci la nga gaañu ci yooyu yëpp lu ci am tax nga bañ koo tekki nga masaa ci koom bu fekkee ne danga sol mbaxana yu mel noonu masaa bi nekk ci kawam kii kii bi méteel bi nga dindi méteel bi masaa ci kaw mbaxana bu fekkee ne loo mën la fa du la wàññi dara boo mënul itam rek ci kaw kii ba koy masaa nga bopp moom duñ ko raxas sax ci ne jàpp dañ koy masaa nekk noonu kon bu dee lor jooju moom bu dul njàpp dul di sang cangaay itam moo tax mu ne la wa in bi xuslim doonte ci cangaay la woon itam waaye boo ko dindee aleykum salaam wa rahmatullah
kon daal loolu ngay dégg ku piqûre woon ba léegi day piqûre wala ñàkk bi wala jënd ko.
waaw fekkee ne piqûre bi wóor na dañ ko taf piqûre bi. phrase phrase bi xam kii def naa kenn amatu ko azawraqul xaaib التي التي أخرج إياك li nga bu dee njàpp bu dee cangaay yëpp mu wóor ne boo ko tekkee wala nga dindi kii bi ci tegoon bi ci tegoon boo jàppee ndax mu gën a ci dugg wala boo ko masaa ndax mu ngi ciy dugg nga mas ci kaw mu ne ah waaw ndox si yéen doonte ci cangaay yooyu itam la mu ne aw bilaa tufrin wala da nga ko cee tegoon suñu dugg laal xam nga ni ñu sàppe woon ci massage ci kaw ndax nga mën a massage ci kaw xof bi yaa ngi ko ciy def ci lan mooy tax ñu mën a massage ci kaw sang
day mos léegi ci ak laab laab boo xam ne bu bu mat lay doon.
laab bu mat laab bu matul muy doon
laab bu dul moom tey ci message maanaam mooy mu def léegi doon jàpp léegi.
waaw wala mu doon sangu léegi rek.
waaw mu raxas tànk yi ba noppi rek àggale ko ci ngay dal di dugal ñaar tànk yi wala benn.
waaw wala muy jàpp wala buy jàpp léegi mu raxas ñaar tànk yi.
Ñaari- maanaam toftalewul wala léegi day mu njëkk a raxas ñaar yi tam jël am nu mu jël. day raxas ñaar tànk bi dugal ko ci ba noppi continuer jàpp wala mu raxas benn bi dugal ci.
mu raxas benn tànk bu dugal ci sang bi waaw doo ko raxas bi jël jëlee ci sang bi wala nga ne mu jë mu jaawale moo xam ne te wala léegi tey maanaam mu juuyale mu juwee la ko jàpp Léegi- maanaam toppatoo ko léegi ni mu war a toppaloo waaw mu raxasee kanam gën a ko rek waaw léegi ci misaal léegi moom def na lu dul noonu sax dafay daal tëb tëb rek bàyyi li mu war a def lépp li ci war a def rek daal dem raxas ñaar tànk bi dugal ko ci ba noppi bëgg a continuer noonu jàpp sol sol kii bi waaw sol sang bi ko nag bëgg a continuer jàpp waaw ba nga après mu delluwaat ca la mu fàtte woon waaw delluwaat ci la moom kii woon wala mu njëkk a raxas càmmoñ bi waaw
ba noppi raxas ndeyjoor bi dal di sol sang ci ci ndeyjoor bi fàttali ko ne moom la càmmoñ bi la waroon na mujj kii mu dellu ko raxasaat dafay du ci du ci mën a masaat ndax bi mu ko ci def laab bi matul loolu mu fekkoon tey mu am kii bu xotti bu xotti bu waxoon lépp na sangu xotti ko ka ñaata du toll na waaye ak ñetteel moom suñu tànk fulus bi lu wala lu ko wala du ko suuf wala du ko su sang su su summikoo nag, su summikoo ba ci kii bi Hmm, ak sa benn sa nin asfala waaw wala léegi bu fekkee ne dafa masaa woon ci mu wañoon masaa ci kaw bàyyi ko fi Hmm, wañoon masaa ci kaw itam ci kaw maanaam kaw xuf bi mu bañoon ci masaar waaw kay xam nga dafa yàqu day tax du du du du kii daal du walaa ba maanaam bu masaawul woon ci kaw xuf bi waaw dégg am ba fi maanaam tey bu fekkoon dafa masaa suuf bi donc mu bañ a mën ah kaw bi ah waaw mooy ci kaw bi masaar rek ci la waaw taw ci kaw waaw kaw ci kaw bi du dox kon dootu si dootu si mën a dootu ko mën a masaar faaw mu summi ko jàpp foo mënu la masaar rek lu fa war jàpp waaw ba mu ne aw bu fekkoon dafa doon cëngaay itam du tee rek li nga xam ne bu ko dindee dana doon lor ci moom day masaa ci kawam ak lu mu ca mën a teg ci lu mun la dañ wala sax aw bilaatoon wala bu mu koy bu muy gaañu gaañ bi ba di ko tax noonu fekkul mu amee njàpp fekkul mu amee laal kon itam du tee buy jàpp ba ak si dara ko mën a masaa ba tey wan taseer wala tamu nga saaroo léegi ma jam-jam yi dafa gaañu gaañu yi dafa tasaaroo nii léegi bu teg ci kaw muy jot jam yoo xam ne bu ma jàppee ndox mën na cee dugg wala mu masaa ci kaw dindi ko ndox mën na cee dugg léegi nag mu def teg poor bi ba mu matale ko mu saaroo xam nga diggante yu amul jam-jam ci digg bi waaw te fekk na li mu ko mu ëpp as kii na mu ëmbaale na place yi ëmbaale la yëpp doo ci masaa moom tase rek donte itam daf ko cee tegoon ci dul laab wala mu mu fekkonte ne day san tengaay la wala du doon njàpp wala itam sax dafa tasaaroo ba bari tasaaroo bismillah mu ne kon in saxa dem wér na julli jasadihi di ëpp ci yaramam aw aqalluhu wala la ci gën a néew wala mu yàqu te du lor parce que waa ko raxas na mu raxas ko dëgg li ëpp ci yaram la maanaam dañoo sikki sàkk da- dafa leer sax xam nga bu fekkente ne njàpp la cëri njàpp yi rek la ñuy xalaat bu fekkee ne cëri njàpp yi li ci ëpp lépp jam-jam yi muur ñu ko mooy juddu jëse bi wala cëngaay la ngay jël li ëpp ci yaram bi lépp xam nga yaram bi lépp la war a raxas li ëpp ci yaram bi itam ba tey jam-jam yi buur na ko wér ja wér na alhamdulilah li ëpp ci yaram bi amul jam-jam wala cëri njàpp yi li ci ëpp amul jam-jam muy comme ni ñu waxee woon léegi rek nga xam ne benn béréb la wala ñaar wala mu tasaaroo waaye ëmbul cër bi dana masaa ci kaw aw aqalluhu wala léegi li gën a néew la li gën a néew ci cëri njàpp wala li gën a néew ci yaram wala mu yedura te du lor kat xaslu ak raxas
maanaam li ci gën a bëri jaram bu fekkee ne jam-jam ak suuf la lépp jaram mi daal wér waaw.
te bu ko raxasee du ci am ay problème daf koy raxas waaw nit ki noonu itam li gën a néew ci yaram itam ci jàpp yi waaw bu fekkee ne léegi itam dafa wér waaye bu ko raxasee du ci am problème du ci am problème mu raxas ko wa illaa su fekkente ne nag léegi li ëpp ci yaramam wala li ci gën a néew wérul ñu saxala waxoon te ak raxas ak raxasam day wala ak raxasam day lor ak bu gënee néew te raxasam du lor wala bu ëppee ci bu ëpp bu gënee bari ci yaram yi wala ci këri jàpp yi wala nga xam ne du la gën a bari lu gën a néew la waaye bu ko lax raxasee dana lor mu leen ba raxas moom bu fekkee ne kilim dana lor bu ko raxasee dana ko lor rek kon fa far duhu farataam ak xew bu mu ci dégg nga mu ni ka am xàll nag bu mu néewee jiddan lool itam ka yedin nekk benn loxo bu fekkee ne dafa néew lool xam nga ko dafa dal di nérale li wér nga xam ne dafa néew lool nga xam ne pour raxas ko daal bu am solo bënul bën bën bu gudd boo xam ne ragal dañ ndox mi dugg ci yow dafa xolli tuuti wala mu gaañu gaañu gaañu boo xam ne ragal na ne daal mën na ko masaa bu sikki sàkk waaye xam na ne xel daal bu ko raxasee du lool du ko masaa daf koy dal di raxas dégg nga dafay nirale ca lay weesu woon la mu xam ne dafay day daf koy raxas ni ki ka an xàll jiddan fu farduhu teemu ka an xàll tashbihuwul ci fu farduhu teemu in xàll wala bu fekkee ne li ëpp ñaari masala fi dañuy wax ne moom benn bi la jublu waaye su fekkee ne dafa néew lool gaañu gaañ yi wala dafa néew lool li wér ci yaram yi xam ne kon moom du mën a sangu du mën a jàpp li wér ci yaram dafa néew lool li nga xam ne ndox mënu koo lor ci moom wala nga xam ne li gaañu ci moom dafa néew lool moom la misaale këyadin li wér ci yaram dafa néew lool nga xam ne bu ko raxasee itam dara du ko ci fekk ndax dafa néew moom li mu li mu mën a raxas dégg nga li nga xam ne dafa néew ci yaramam te bu ko raxasee du ko wàññi dara dafa néew lool li ci des bépp def ko bu ko bu ko raxasee mu lor ko mu musaa niki moom la misaale ka yadin naka loxo benn loxo kese moo wér ci moom yaramam li ci des lépp dafa amee gaañu gaañu wala feebar du mën a du ko mën a raxas maanaam benn cër rek nga mën a raxas boo ko raxasee loolu loolu du jàpp lu kenn xam bi masalan su fekkente ne léegi yaramam yëpp dafa am tax lor yoo xam ne bu ko lu mu ci raxas rek mu gaañ ba mu des benn loxo rek du dem di raxas benn loxo bi rek.
am moo xam léegi jam jam yi dafa matali yaram bi.
waaw ba wàcc bal wàcc loxo bi.
waaw wala léegi itam li ci wëcc njàpp yaram bi.
wala ci njàpp euh, ci cëri njàpp yëpp itam dem dem yi daf ko matale ba mu des benn loxo.
wala matali ko sax waaye loxo bi daal lay la jàpp ne moom bu ko raxasee du jàmm benn problème.
waaw gaa yi ci des yëpp moom lu mu ci raxas ragal na raxas bi mu lor ko léegi kon du du ne man kat gannaaw damaa waroon a jàpp ci li nga xam ne dafa am tabat te mënuma ko raxas dégg nga kon dama koy masaa mu masaa kon cëram yëpp ba mu des benn kii rek mu raxas ko loolu lay dàq dama saawaat day day day masaa. Masaa tiim.
day day- tiim day tiim ndax
masalan du du tàmbali masaa kanamam masaa boppam masaa tànkam masaa beneen loxo bi ba benn loxo bi rek mu raxas ko ndax moo ci wér ndax léegi de li ko def mooy lépp ci cëri njàpp yi wala lépp ci maanaam li mu waroon wax lépp ci mel ne ab feebar.
feebar la da caa waaw da caa nekk.
waaw léegi nag li li mu mën a raxas lu néew la léegi du dem masaa yooyu yëpp nag li mu mën a raxas mu dem raxas ko kon kat moom kon jàppul tiimul kenn xamul mu def loolu moo tax mu ne ka am xàll mu ne li ci nekkam daal noonu lay tiimee bu néewee lool ka yadin wayen xasala waaye ba tey bu fekkee dem na raxas koy kañ ci saa waaye nag sant ñu ko ko bu dëjërlee ba def ko ah moom def ñu bàyyi ko ca waaye jàppul tiimul de waaw fii bon léegi de du tiim gi léegi di ci ñaari mbir lay wax ne moom lay yore fii.
waaw
wa illa maanaam mu ngi dellu si ne léegi day jullu jësa bi wérul waaw xam nga waaw xam nga li fi waaw wa illaa bu njëkk bi nga xam ne bu ñaari wa illaa bu xottu waaw ci waaw fafardu ci boobu waaw laa wax kañ xam Du boobu la.
waaw in saxa jullu jasadihi aw aqalluhu walam yadur li ëpp ci yaramam dafa wér li ni- li gën a néew mooy gaañu gaañu kooku mën na koo masaa waaw ah.
waaw waaw aw aqalluhu wala lu gën a li li gaañu ci moom du li ëpp ci yaram moo gën a néew ci yaram waaye nag eh, walam yadur na xasluhu nga xam ne bu ko raxasee itam du ko lor
da koy raxas waaw da koy raxas bu li ëpp ci yaramam wéree li gaañu la da- da- li gaañu daf koy masaa wala li gën a néew ci yaramam moo moo wér te bu ko lo- bu ko raxasee du lor
comme kon wala muy dur raxas lu ji ba ngi dellu si aw aw aqal lu aw aqalluhu rek ci la dellu si aw aqalluhu rek.
bàyyiwul waaw.
in sax julli dina bi déedéet déedéet li sax julli ci sët yi moom moom xam na ne leer na moom day tiim ah eh, eh, day day day Sangu.
masaa day masaa sangu tama sa waaw te sangota masaa masaa béréb yi di gaañ béréb yi gaañ béréb yi gaañ ndax li ëpp ci yaram wér na waaw tey wut naag bi nga xam ne li ëpp ci yaramam dafa wéri bi ba benn ci rek wér ci kii moom li ëpp ci yaramam wér na ah li ci des da- daf koy masaa wala li gën a néew li gën a néew waa li gën a néew moo wér waaye li nga xam ne moo des itam bu ko raxasee bu ko lor bu bu raxasee lépp bu ko lor kooku loolu mooy day raxas wa illaa bu fekkente ne nag léegi lee amul ñaar yooyu yëpp nga xam ne nekkul nga xam ne léegi dañ li ëpp ci yaram bi mën na koo raxas dégg nga wala li gën a néew te wér dana lor bu fekkee ne li gën a néew ci yaram bi bu ko raxasee lay lor xool fii wa illaa ay wa in kaana xaslul julli awil aqalli awil aqalli saxe al julli awil aqal bu ci nekk saxe yadru bu fekkee lor day lor fa fardu ay xukmuhu wa ruxsatu lahu atteemum
kon wa illaa bi mu ngi atteemum boobu indi nga ko ci ci matnu bee waaw mu nga ca kanam waaw atee wa illaa fafardu atee
Hmm? waaw fa fardu atee tey moom waaw dégg nga fo- fo- wa illaa su fekkente ne raxas lépp wala raxas li gën a néew wala li gën a néew te wér day lor farataam mooy mu tiim dégg nga waaw leer na leer na leer waaw waaw mu nirale ci ci kon tiim bi hmm?
ñu tiim dina ci farata
waaw ci tiim bi nga xam ne tiim mooy farataam mu wax ne ka an xale ji dan naka noonu li wér ci yaram bi dafa néew lool nga xam ne mënu la masaa li gën a bari dem raxas na lu lu tuuti loolu mu tiim yéen di xool na leen
mu mu misaale ko kayit yi ci dafa waaw benn loxo rek
lu bon day wax léegi tey maanaam ki nga xam ne léegi tey maanaam ci la tiim di nekk farataam ñaari mbir waaw ñaari mbir waaw bu waaw njëkk bi du mooy bu fekkee léegi di yaram bi li ci ëpp dafa wér waaw wala li ci gën a néew daa wér waaye bu ko raxasee bu raxasee lii wala mu raxasee dana am problème dana am problème waaw kon léegi day tiim day tiim nekk noonu itam léegi de bu fekkente ne léegi de li gën a ëpp ci yaram bi dafa wér ji waaw kon itam day tiim kaam xal la ji dama li ci wér daal dafa tuuti lool dafa ni mel néew na- lool nga xam ne li néew lool mu dem di ko raxas li ci des lépp mu bëgg koo masaa kooku itam day daf koy bàyyi tiim nga xam nga kooku mooy ki nga xam ne mun loo ne dafa jàpp mun loo ne dafa tiim ndax benn tiir dong dong nga raxas li ci des lépp mu masaa ko te tiimu itam ni ki mu ne këyat yi nekk benn loxo mu ne nga xam ne loolu nga xam ne bu ko euh, moom benn loxo dong la nga xam ne kon moo wér ci yaramam te tax na farataam di tiim léegi nag mu dem euh, bu ko raxasee te nga xam ne mën na koo raxas mu dëjëloo donte lor na ko it dana ko lor waaye raxas na ko moom du tax ñu ne ko euh, raxas gi nga ko raxas bu tee léegi da ngay dem tiimaat
ci gannaaw doy ko raxas gi dana doy Bu dee donte jàpp lor na na ko itam nga xam ne dañ koo digaloon mu tiim ndax ba ne lor bopp waaye far na raxas moom mu supporté lor gi daal léegi waaw waaw waaw waaw wala mu rax wala mu jàpp waaw muy ci cangaay mu sangu wala ci jàpp mu jàpp fekk sëñ bi wàllu masaab la ma ne wàllu masaab la yenn pratique yi nga xam ne da ngay am ngaan ngaan waaw jël maanaam lu demee ne diwlin wala yooyu.
waaw.
xam naa dana ko mën a protéger.
waaw nga def ko ci.
waaw dem jàpp est-ce que kooku.
mooy yi day wax daf koy masaa Mm.
bu fekkente nag eh, lor raxas gi du wàññi dara nga xam ne xëy na li nga ci appliqué dana tax ndox mi di dugg bu la wóoree mën nga ko raxas ndax bu fekkente ne lu lu niin la ndox mi jaar ci xam nga mu mu mu wéy nga ne nga continuer raxas xam nga lu ni naan lu niin loolu xam nga ma- bu soppee ndox dana lor nga continuer ko waaye fépp àndul ca ndox ma nga sotti ko ci rek eh, du ci wàññi dara mel na tey fii moom nga diw nga fab ndox ngay jàpp ndox mi daal def ni jaar ànd ci xam nga toujours léegi ndox mi niin na li jàpp mu dal di kii yéen xam nga kon ndox mi jaxasoo naag lu koy lor lu yàq ba duut nekk mut la waaye nag àndul woon moom jaxasoowul woon ak ndox mi si cër la ko fekk léegi daal mu dellu ci gannaaw wa imaamatin ak mayateel ubbi leen ci gannaaw. xëy na boo xam ne ragaleef na ci nit taxaasi buñ ko sumee lor. ni nga ba tey tiim wa in nga ne ko xanaa kon njàpp rek la mu ne wa in tuxus li doon ci cangaay la wane tamit. aw wala ñu mu defoon ko ca moom mayateel ga wala lay aar lépp bilaa tuxus ñu fekk am na lu njàpp mu def ko ci ba noppi duñ ne xam nga bu doon ca euh, masaa ci xuf dañ cee saat nga def ko ci ci ci laab. waaw gaax bu mag fekkee nag lu mel ne jabiira la rek léegi bi nga ko ciy def sooy boo amee njàpp sooy bañ a am njàpp gannaaw lor la daañu la baal nga mën ko masaa bañ koo raxas dégg nga walaw mu ne wa imin tas wan tasera maanaam wa imin tasera rek la dégg nga doonte xam nga bu nee wan tasera saa ak sart ko bo attaque ko ci kon dafa mel ne ci lu dugg laab te mu tas te mu te mu jox te mu wetaaroo waaye wa inin taset doonte waaw moo moo gënoon wa inin taset ma ne wan tase rek doonte itam dafa nekkul ci benn béréb rek lu dafa tasaaroo kon du tee dana ci mën a laab dana ci mën a masaa dana ko mën a masaa mu ni nag in saxa ndem wér na jullit bi nga xam ne kat gaañu gaañu bii daf ko ci bàyyi bañ koo raxas te masaa ko na fekk ne li ëpp ci yaramam dafa wér ba foofu benn gaañu gaañu bi rek am ci lor yoo xam ne nanguwul ndox waaw aw aqalluhu wala nga xam ne moom kat li gën a néew ci yaram yi wala ci cëri njàpp yi bu fekkee ne day jàpp dégg nga boobaa nga xam ne lu gën a néew li moo wér li ëpp taw nga xam ne mënu la mënuñu ko raxas xam nga loolu wax ni so so yi tax mu tiim
waaw saw yi tax mu mu mu mu mu.
mu masaa mu masaa waaw bu masaa bu masaa bu masaa maanaam daal mu bañ a jàpp la dégg nga mu bañ a raxas cër yi mu bañ a raxas cër yi dégg nga maanaam fi nga xam ne fi nga njàpp wàcc bu ko wala ca ngay wàcc bu ko daal.
waaw kay lay wax.
waaw aw aqalluhu wala nga xam ne li gën a néew moo wér li gën a néew yaram moo wér ñu ne kon xam nga mooy li ma misaaloon bu dem di raxas lu ci def lépp di doon di raxas lu tuuti loolu rek dégg nga li ci des lépp mu di ko masaa ndax wala mu yadur raxas lu ko dafa dafa dafa ko cee atal aw aqalluhu wala mu yadur raxas lu ko
du du du ñaari sart la de.
ban ak ban ci masalan lim ne in saxa jullu jasadihi aw aqalluhu.
waaw.
loolu nekkul benn sart wala mu yadur raxasuluhu nekkaat benn wala.
aw aqalluhu maanaam in waaw ñu in in in saxa jullu jasad yi aw aqalluhu aw aqalluhu wala mu yàggal raxasluhu aw aqalluhu wala li néew li gën a néew ci yaram bi kat moo wér ni ki benn loxo kooku bu fekkee ne cangaay tax ñuy wax wala ngay ngay jàpp cëri njàpp yi rek la ñuy xalam li ci ëpp nga xam li ci néew mooy li wér dégg nga te nga xam ne li wér loolu kat li mettiwul bu ko raxasee du lor maa ngi ci li koy tax na saa waaw waaw.
léegi lu bari ci yaram wi moo wér mooy in sax ak lu ñu def ak yooyu.
wala mu yadur raxasuluhu.
déedéet waaw xam nga moom mooy moom wala mu ah moom rek moo xam.
waaw bu fekkente ne benn dégg nga li ëpp ci yaramu mbaal in sax julli sa dafa wér ngay masaa lu tuuti li gaañ wala li gën a néew ci yaram wi mooy di wér te loolu gën a néew kat boo ko raxasee du lor du lor wala mu yarul wala mu yarul akkas li mu ne nag kon wa illaa bu fekkente ne li ëpp ci yaram bi wala li gën a néew te wér buñ ko raxasee day lor li gën a néew wér te buñ ko raxasee mu lor wala li gën a bari moo wér li gën a bari moo wér xam nga leer na benn cër bi rek moom moo wéru nga ma saa ko léegi benn cër bi rek moo wér nag tey benn cër bi rek moo wér waaye li ci def boo ko raxasee itam du wàññi dara mën nga ko raxas te du lor waaw
waaw waaw waaw mu ngi tàmbali de yoon ci yoon yaa yaa ngi ko commencé waaw mu ngi tàmbali dina ngi ci yoon yi waaw kon naa dana benn li ci gën a néew moom ñu toll nii boo moom moo wuraay boo ko raxasee lor benn cër moo ci wuraay boo ko raxasee xam nga li ngay gis ne xottu te waaw ndax boo ko seetee du lu logique la waaw ndax bu fekkente ne léegi bu ne fa fa fa teyam waaw mooy loolu yëpp mu ngi aju ci su ko doo teem fi ko fi xamee ne farataam mooy tiim in xiifa xaslu jurxin ñu ragal ne jam-jam bii gaañu gaañu bi kat buñ ko raxasee mën na indi gaañ gaañ gaañ gaañ mu ne naka ragal ga daan war a tiim ci feebar mooy mu yokk ragal nga ne boo ko seefee dana yokk wala dina tax mu yéex a wér waaw loolu lépp kon nga xam ne na mu ne boobu bu bu amee musiha mu ne mu di la xamal ne du caa gën fi gaañu rek la ñu mën a masaa waaye bu dina tegoo ci kaw loo xam ne daf koy aar it mën nañoo masaa ci kaw loola mooy suma jabiratu waaw suma isaabatu topp jabiratu mooy dañ cee ay ay dañ cee teg lu woyof ay wëñ buubu yi ñu koy yi ñu koy kilee yi ñu koy yeewu mën nga isaabatu mooy ki nga ciy tax
mel na baax mel na baax ko rax xam nga li nga ciy taf buum bi mën na ko wees mooy bu fekkente ne léegi fi buum gi fi buum yi jaar nga xam ne liñ ci taf àgg bu te mën nañ ko wax te duwaañ yi rek bu fekkente nag loola day lor moo tax moom summa isaabatu moom isaabatu mooy kii bi ci boppam ki ñu ki ñu ki ñu ko bàndee
léegi man man dañuy dégg ne léegi góom bi yóbbu muy góomu kese. moom la yor kër bi léegi.
waaw moom la ñu war a mën a moom la yoroon masa.
ñu ne nag léegi ñu supposé ne bu fekkee ne dañ cee taf garab léegi wala lu koy aar.
waaw lu koy aar da ngay wax ak masaa ji boo xamee ne boo ko dindee mu lor da ngay masaa ji kaw wala dañ ko takk xam nga takk takk yi gën a yaatu waaw waaw.
mais peut-être dañ ko mën a masaa bu fekkente ne day lol boo ko raxasee mu lor da nga koy ma- masaa yooyu yëpp noo ngi ci masaa ba tey de mu ne tafas bi mu ne la ci gàcce ni ki ñu nàmpatal comme aw ne aw sa yi def ba tey nga xam ne boo ko raxasee ragal ndox dugg ci ba tey yaa ngi masaa o maraaratan wala wextan waxtanu ganaar wala yooyu nga tax ko ci nga am ñu koy fajee jam-jam da nga masaa ci kawam ba tey ci masaa waxi tax suttan wala këyit wu ñu tax ci suddox war nopp ba tey kooku da ngay masaa wa imaamatin wala da nga koy yeew ak meeteel mu ci tey dafa am ay jam-jam yu bari wala yu gudd mu laxas bopp bi rek ak morso xam nga morso bi moom day muur fu bari ak fi gaañoo fi gaañuwul ba tey kooku dana dana bu fekkee ne xiifa ragaleef na wa imaamatin ak meetal boo xam ne xiifa ragaleef na bina siyaati bu ñu ko summee lor yaa ngi dégg waaw.
ay maama maanaam meetal goo xam ne bu ñu ko bu ko waaju tekkee rek dana lor bu masaa ci kaw maanaam bal- bala ñu àgg ci xaw fi liggéey si ñoo ñoo delloo.
waaw waaw waaw.
ci bon bii la maanaam tey jii nit ki moom am na góom moom ci boppam.
waaw bu mënee masaa góom bi ci boppam noonu la.
waaw bu fekkee te boo ci léegi.
maanaam boo xamee ne bu raxasee góom bi mu lor ko waaw du masaa bu masaa bi.
waaye du tee nag day jàpp ay jëmmi góom bi ci boppam.
waaw bu fekkee ne léegi bu masaa jëmmi góom bi am ay problème léegi fekk am na leneen nu mu jikkoon teg ci kaw.
waaw na masaa lool.
moom moo saafara waaw fekkee ne léegi tey loolu maanaam bu dindee la mu tegoon ci kaw di ko massage ko gëm comme ni nga ko waxee rek mu dal kooku massage kaw la waaw fekkee ne léegi tey même lam jiital ci ko góom bi tam bu ko masaa moom du problème nafar masaa ji ko bànn ba daal ci kaw bànn waaw waaw kañ waaw benn jëmm góom bi wala liñ ci teg liñ ci teg góom bi wala jëmmi bànn bànn ba waaw ba ci meeteel bismillah mu massage ci kaw mu meeteel ko nga xam ne ba ko dindee ragal naa loolu am ci nga ne ko massage meeteel nag xam nga loxo kon bopp bépp lay muur xanaa kon kon daañu ci charte ba mu ko ciy teg mu amee woonam jàpp
mën a fi ndax wala ci laa wala mu sangoon ba noppi waaw mu am toxaru xadd fee est-ce que dégg nga waaw dégg naa loolu comme bopp bi lépp la ñu war a masaa sa masaa dafa war a jaar ci karaw bi ñu ne te loolu bari na ciirul jàpp lëmm la kon kon war nañoo xalaat ndax bala mu cee mën a masaa na fekk de- def ko ba muy teg meetal bi fekkoon mu laal yéen la déedéet waaw mu ne wa- mhm.
xiima bi na si la bon léegi ndax ambaale na maanaam nit koo xam ne ngi day demoon na ci ab àll boo xam ne benn daal wala climat boo xam ne moom bii taxu ko miin waaw ragal climat bi tax mu kaala woon moom mu jàpp te yaakaar naa ne bu dundee kii bu mu gàtt gàtt xëy na climat bi dana ko indi dara wala yu mel noonu ndax loolu ambaal na ko fii yéen nga Kii bëgg na seen- waaw loolu nag mu ngi aj ci seen dégg ñu ngeen dégg aji feebar dana tiim ngir ragal benn bu jëfandikoo ndox feebarul sax waaye bu jëfandikoo ndox dana feebar wala feebar la ba noppi te bu jë bu jëfandikoo ndox benn bu tax mu yéex a wér wala bu feebar bu yokk ñett yooyu lañ ci sàkkoon feebarul waaye bu jëfandikoo ndox dana feebar muy benn ñaareel bi feebar na sax ba noppi waaye bu jëfandikoo ndox mi feebar bi dana yokk ñett xëy na sax bu jëfandikoo feebar bi du yokk waaye dana tax mu yéex a wér waaw ñu ko yenn soj bi léegi sa yëf waaw waaw si kanam ak doom.
dégg nga mu ne wa in bi xuslin bu fekkonte ne itam day sangu it day masaa ca kaw mu amee ca ngaay it day masaa ca kaw kii bi ci kaw meeteel ga nga xam ne ragal na ne bu ko sumee daal la fekk ci nga ne ko xanaa daf fekk mu làpp mu ne wa aw bilaa tuhrim wala mu mu mu tëraloon ko ca maanaam mu meetaloon bopp bi te fekk booba am na wul am jàpp mu ne loolu wuti naag xufu wa inin maanaam wan taseer ay wa inin taseer doonte dafa tasaaroo maanaam bérébu gaañu gaañu yi dafa tasaaroo ba nga xam ne buñ ko muuree wala ñu ne meeteel ko day ëmb lu bari itam waaye nga xam ne amuñ ci pexe ba ngay masaa ci kaw jam-jam nag wala ci kaw poor bi wala ci kaw buum gi na fekk na in saxa nem wér na julli jasadihi bi ëpp ci yaramam nga xam bu dee yaram bi la ñu fekk mooy ci tëngaay waaye bu dee ci cëri jàpp dañu fekk cëri jàpp yi li ci ëpp moo wér li ci ëpp maanaam moo moo wér di aw aqalluhu wala li gën a néew waaye walam yadurra te du lorkat gasluhu raxas la wér dégg nga bu fekkente nag li wér dañ dafa war a xam waaw day lor lu tiim
léegi kon gars yi wala.
wala jàpp jàpp wàcc na waaw ko wàcc na ko léegi tiim ci def.
waaw kañ kañ la ñuy bëgg.
waaw léegi dégg bu baax na mu ni nag wa illaa bu fekkente ne li nga xam ne bu ko raxasee te mooy li ci ëpp wala lu néew li nga xam ne dafa wér ah nga xam ne loolu lépp bu ko defee itam day doon.
day lor fa farduhu lay farataam ak tey mu tiit leer na leen waaw loolu laa bëgg.
alhamdulilah ñu jàll mu ne ka an xàlla naka bu mu néewee moom lan li li wér li wér te néew.
te buñ ko raxasee du lor du lor nga xam daal li mu mën a raxas daal lu néew la an xàlla mu mu ci lu mu ko nirale far du te amul waaw kañ kañ xal naka bu néewee li wér jiddan loo li wér teg raxasam du lool mu néew jiddan lool nga ne ko lu mel naan masa mun lekka yadi nekk loxo waaye kat kon farataam mooy tiim waaye wa in xasara bu fekkee ne dafa dëjërle maanaam rek dem rek raxas ko moom moo xam dana ci lor wala du ci affaire am la aji saa du tee dana doy kenn du ne ko nag ñëwal tiim ndax safaraata mooy tiim foofu daal def naa la problème bi.
nañ ko tey rek nañ ko tey rek.
kon daal léegi kon léegi li ñuy wax mooy léegi moom. farataam mu ngi nekk tiim.
waaw ci ci ban xaal.
ci lu weesu yéen waaw ñëpp bu bu farataam fekkee- farataam moo de li mu li nga xam ne dafa wér ci moom dafa néew lool waaw
nga xam ne mënu raxas loolu rek di masaay bukk comme benn ndox.
waaw
raxas loolu du lor.
waaw raxasee du waaw waaye moo ci gën a néew.
waaw bu mel ne que que yaddi waaye loolu itam kat moom mu dem rek ne suma yoon waaye dama koy raxas rek xëy na ragal yàlla am ci àgg wala ndox mu raxas koy xam nga tey farataam moo doon tiim waaye tiimatul daf ko raxas léegi waaye ba tey dana ko dana ko doy maanaam diggaluñ ko ko woon ndax islam day wax ni ko lu lor laa barara wala diraara ah ñu ne la nag lii boo ko defee dañoo farataal ci yow lii di bañ jàpp ndax lim lay lor nga supporté loolu di dem def ko bu doon leru loru keneen la du dagal waaye sa loru bopp yow mu yàq na la sa bopp yoo xam ne mu kàlla bu yàq la yu doon nga doomu aadama lu mu nangu mu kàlla bu mu nangu te lor ja du du jàngati dem ci keneen da daan nañu teg moo ko nangu ko mooy waaw ka am xal naka bu mu néewee lëwéer teg li nga raxasam du lor jiddan loolu kayit waaye wa in xasala bu fekkee ne téewul mu raxas ko itam nga xam dafa waroon a tiim ndax moom li wér dafa néew lool li wér te te te raxasam du lor te kon li ci des lépp nu mu koy def
xanaa fi nga ne mosaa.
waaw mosaa la ko war a def.
voilà bu dee nga raxas ko lekk dana wér dana béy waaw maanaam.
lépp li wér moo néew kooku du ko mën a masaa waaw bu fekkee ne li feebar moo néew lool dana te li ci des yëpp mu mën ko raxas kon dana ko masaa waaye bu fekkee ne nag li wér li wér moo néew lool ci benn loxo.
waaw bu ci benn loxo tiim la war a def.
waaw xam nga kon li wérul mooy li mu dem bëgg masaa yaram wip wip wip ba benn loxo ko ñëw di ko raxas
ni nga waaye lu tiim bu jàpp.
waaw kañ waaw mooy loolu mu doon misaal noonu dégg nga waaye wa in xasara dem raxas na ko it aji sa ba tey mu de mu ne wa in taasara dem gàttañ dem gànta gàntañal na masoo ak laalam waxiye te moom ga bérébu gaañu gaañu boobu bi aba yi bi aba yi te mu nekk ci béréb bi tiimam tarakaha mu bàyyi ko wata warta ak tamu jàpp yeneen masara képp mu waaw waaye boobu da leer dafa naa
waaw bi moom la ñu.
léegi laal ko sax ba di ko di ko masaa mënu ko dafay metti lool tey ci cëri tiimam la nekk ci moom cëri jàpp gën a bari ndax tànk bokkul ci cëri tiim ci cëri jàpp la bokk ñun kanam ak loxo rek ñooy cëri kii waaw li ko gaañu nag ci foofu la nekk ci loxo bi wala ci kanam bi léegi kooku moom moo moo- moo mooy wa inta asara daf ko mënul a laal dem gàntañal na maso ak laalam te way yëg te mbir moom moom gaañu gaañu bi biaa bàyyi te nekk ci cëri cëri tiimam léegi tarakaha mu bàyyi ko wata wata ak mu jàpp ndax xam nga cëri jàpp gën a bari kon mën na raxas bi buñ ne li metti moo gën a bari ba tax na mën nga raxas li di ko di ko di ko masaat li gën a néew kon moo gaañu mooy loxo benn ci loxo bi rek wala ci kanam wala ci kanam bi rek li ci des lépp mën na ko raxas kon bu ko defee tey bu tiimee du ko mën a laal léegi tiim tiim moom daaxal nañ ko ndax metti na metti koo xam ne mënu koo laal bu di ko tiim ndax masaa moom nii rek lay daal ci kaw tiim nag moom li la wax nii moom mën na lor ndax dafa metti li ko gaañ gaañu gaañu yi li ko gaañ dafa nekk ci tiim tiimam te mënu koo laal waaw kon léegi lu muy def day jàpp ndax bu jàppee fu ci metti rek daf koy masaa.
koy masaa ah fii est-ce que du ko bañ a laal sa gannaaw moom.
laal gi xam nga mooy di ci tiim tiim te xam nga suuf si dana am lu ko dana ko laal daal tiim day gën a waaw mel.
ci masaa moom nii leen di def mën na koo daanaka bañ a laal sax moo gën a woyof.
waaw masaa moom daanaka yéene rek yéene ji rek moom nee nga am yi tarakaha wata wata wa illaa bu fekkee nag yi mu sart ne wa in taazara masuha wa ba noppi wahiya bi abaite mu ngi yooyu bu fekkee ne mu ci ñetti wax na bii nee na day jàpp bii ne te masaa bii ne day tiim bi ci des nag day jàpp te masaa bii ne maanaam aji ñetteel ji xam nga jàpp fi nekk boo jàppee da ngay masaa boo jàppee ba àgg fu gaañu sa nit ki gën a néew ci yàgg da ngay masaa ah ah muy jàpp kenn saa wala moom kay day day day day day day raxas lépp wala day tiim ñetti wax ci ñi aji ñetteel ji mooy day tiim nga seetaat sax dafa mel ne ñeent sax ndax nee na war a am ay tam.
wala waaw kañ mu ngi ci kanam ah léegi mu ne waaw xam nga bu fekkee ne ja- laa xam si wala masin waxtu war daa wudu an naaqisa njàpp mu manqué lay jàpp xam nga kooku mooy njàpp mi day jàpp waaye fi mu mun la masaa sax du ko masaa fi mu mën a masaa lay masaa bu fekkente nag jam-jam yooyu nga xam ne kenn mënu koo laal dafa nekk ci cëri njàpp cëri tiimam mu kon dana waxoon bu njëkk njàpp taxoon ñuy wax léegi tiim la mënul mu ne fefee aqwaalun ay wax la sax dëgg moom kay ëpp na sax ñetti wax waaw aqwaalun la sax dégg nga mu ne aji ñetteel ji mooy day tiim bu fekkente ne jam-jam yi bari na fi mu la laal bari day tiim in kasoo dégg nga bu fekkee ne mooy lii gaañu moo ëpp li wér mu ne day tiim delluwul ci fa mënul bokk ak masa bi nga xam ne mënul la tiim ndax mënul la laal kii bi de mënul la laal li metti de de beneen masal dellu bokk ci kaw.
waaw beneen la bi moom mën na laal mën na tiim dégg nga waaw
dégg nga waaw.
mu ne waraa bi oxaa aji ñeenteeli wax yi mu ne it ma oxaa dara boole ko maanaam ñoom ñaar it ma oxumaa xanaa la waaw njàpp ak tiim cër yi fi mu fi mu mën a raxas rek mu raxas ko fu mu war a tiim fu mu mun la raxas mu tiim ko mu tiim ko ah dégg nga ko tamit war a am yoo kon kii daal day mel ne léegi dañu dégg ne lii maanaam ñeent wax da ci am.
waaw léegi nag moo mu ne aqwaalum waaw leeral nag maanaam fi mu toll nii al awwal wa saani waaye saalis daal la gën a leeral ni ak raabia bi.
ak rabi waaw léegi yéen dafa dafa xaw a junj rek bàyyi noonu.
waaw ndax it it ma uma moom dafa boole njàpp ak tiim te kon mooy fu mu mën a raxas mu raxas ko fu mu mën a raxas mu tiim nga xam ne foofu kon indiwul masa njàpp ak tiim la la la indi al wudu wa tayammum fa fa yaxsilu sayha wa yatayammamu yuqaddimu al wudu li an laa yafsila bayna tayammum waaw day jëkk raxas cër yi jàpp yi cër yi maa xam ne mën na koo raxas ba noppi yi mënu la raxas nag mu tiim ko rek daal di kàbbar gannaaw tiim moom kenn du ko denc boo tiimee rek daal ngay war a kàbbar seet na bu baax kooku moom day bàyyi ba bu jàppee ba àggale soo bu jàppee di tëb kenn la xam.
waaw di tëb cër yi mu mënul a jàpp bu àggalee nag delluwaat tàmbalee ci cër yi nga xam ne mënu ko woon a jàpp mu tiimal ko bu tiimal rek kab bu àggalee dal di kabbar mooy yëj ma oxuma mooy day boole mooy ñe- ñeenteel wax ni wala ñe- ñetteel bi ñeenteel wax ni mooy day boole ci ak njàpp jàppuloon rek ah waaw day mel waaw ku jàpp.
waaw mu tiimal yi mën a tiimal aji ñetteel ji moom mooy bu fekkente ne rek dafa war a tiim rek tiim rek waaye ci sàttu na fekk ne di wér bari na xam nga ne beneen wax bi mooy bu fekkee ne li fii bariwul day tiim ba tey ñetti wax ñeenteel bi mooy day boole tiim ak njàpp
dokk bi bari na nit Hmm?
dokk bi daal di bari nii
wara bi waaj ñeenteel bi moom maa day boole tiim ak njàpp wa inna sa xaas fekkee ne summi na poor ba wala mu summi meeteel ga li dawaay ngir na ma saafar lowu daf ciy bëgg a def garab aw saqatat wala mu jekki-jekki waddal boppam wala nit fen ko mu ne mu ne pëndang wadd way mbi siraat yi doon def fekkoon ci biir julli itam xataa a mu dog julli ga waraat daha te mu delloo ko ca wa masaxa te mu masaxa
saawaat yi li ma saawaat waaw waaw waaye saxa bu fekkee bi mu waddee daf ko xool mu wér xasala daf koy raxas du ko masaa dégg ngeen dégg wa masaxa masaat na mutawaddin aji jàpp rasahu boppam waaw loolu mel na wa masaxa shaxsu mutawaddiun maa soxor ala imamatihi ah dafa man ko attaché ci ma xale yeekat waaw
léegi fekkee ne dafa rab ki nga la xasoon fii dafa summi ko wala metteel gi dafa rab benn da ngay julli nga fee nit daje nit mu loxo fee ko mu wadd wala ñu mën doon léegi bu fekkee ne wéru te ñu gën a ñëw nga xam ne masaa ci ak masaa ko julli gi day yàqu julli gi day yàqu waaw julli gi day yàqu ci ay charte bu dëddoo penku mu yàqu bu fekkee ne déplacé na lu gudd bu génnee jàkka ji mu yàqu bu jëf ji yàggee it mu yàqu jëf ji yàggee mu yàqu mu ngi niroo kii jaan ji jëm si yoon ci moom muy julli mu rey ko wala jiit ji
comme kuy bëri nag du ñu dox.
waaw buntu bori moom buntu la moom daañ ci àgg Eh, bori moom xam nga ne deret dañ ne deret bu dul eh, bé- bépp sawar bu dul deret rek jéggale wuñ ca dara bu ne yoon lu bare ceeb deret nag jéggale nañu ba mu toll ak dërëm bax la bu ëppee tuuti rek sobe sobe la soo xam ne jéggaleetuñ ko léegi bu fekkee ne nit ki dafay bori mais sax moom dañ koy jàngi soxla lu ko di ko wax day jàpp bakkanam benn muy imaam wala muy maamum bu fekkee ne imaam la bu jàppee bakkanam sopp nañu mu xëcc kenn jiital ko mu remplacé ko su fekkente ne moom daf koy raxas yi ndax dañoo njëkk a wax ne fàttaliku na ko def bii xam nga bu ñëwee kon bu fekkee ne bori bu ñëwee la bu ko defee nii mën na dañ continuer julleem wala mu baram ko mooy mu dee nii pompe ba tey ëppagul dërëmu baax la bu fekkee ne dafa yol di toq mu jàpp ba kanam génn bu génnee day jubal fa ndox gën a jege waaye bu paasee benn béréb bu ndox dem bu ko gën a sori julleem yàqu bu fekkee ne itam dafa génn nga xam ne mu ngi doxee gannaaw bañ a woon gannaaw penku mu àgg ci béréb bu ndox bi mu jege mu raxas ko dellu siwaat fekk ñuy julli bu fekkee ne maamu la woon day continuer julleem bu ñu àggalee di ko fi faat mu fay ko bu fekkee ne imaam la woon day continuer julli boppam ndax doo mën nekk imaam nekk maamu jigéen mu julli su fekkee ne digg nga fekk ñu pare mu continuer aussi julli waaye wax bu fekkee ne ngaa woon gannaaw penku bi wala mu yàgg wala fa nga nga génn fa nga fa nga wuti ji ndax sori wala nga weesu ndax mu gën a jege yëpp sa julli yàqu boo ñëwee doo jokk da ngay da ngay raxas sa deret kàbbaraat
yëngatu yooyu mu def
jéggale nañ ko feeg sart yooyu amul rek
xanaa tey foofu kii wàllu kii ba nga xam ne la nga dugg ci jàkk fekk ñu maanaam ñu ñu kii ñu ñu rukkoo ñu rukkoo da ngaa dugg rek fekk ñu rukkoo ndax dama dégg ñu ni léegi mën nga mën nga kàbbar fa nga toll rukkoo noonu pour bañ a perdre rakk buy siggee nga dox dem bokk ci ci kii bi est-ce que loolu waaw waaw waaw bu fekkee ne xam nga gannaaw ñoom fekk nga leen ci jàpp woom rek da nga compter boobu rakka boo duggee rek fekk ñu daal di commencé rukkoo nga daal di yéene allahu akbar daal di leen fekk ci rukkoo bi daal di yukkat bi yukkat li ñuy wax ba àgg ci kii gën a jege dem bu du wàññi dara daal di ko ak mën nga dem ba ci sax bi seetam bi nga leen fekk rek nga kàbbar am na ñoom.
waaw bu fekkee ne loolu bu fekkee ne da nga ragal rukkoo bi fàtt la nga xam kon dootoo am rakka boobu te mën na am muy rakka bu mujj bi te kon doo am julli mbooloo waaye bu fekkente ne daf la wóor ne ñu ngi jàng taxaw nga xam ne kon rukkoo bi xaajagul bi ñoom mën nga dox ba àgg kàbbar ànd ak ñoom ci rukkoo bi da ngay daal di dem ba àgg sa place daal di kàbbar ndox boobu ngay dox itam ni am na fu ñu ko limité de ak itam ndax day fekk nga siggi wala nga ci biir rukkoo bi la nga fekk waaw ci biir rukkoo bi la fekk ngay fekk ci biir jàkk ji waaye boo nekkee ci xaariji ji di doo ko mën jàkk yi itam foofu ma nekk rek boo xoolee ba dugg rek nii wala boo xasee ba dugg rek boo xasee ba dugg rek waaw boo xasee ba dugg rek waaye nag loolu itam bu fekkente ne am na yiir yiir da nga gis place boo xam ne kenn nekku fa waaw nga dem kon même bu fekkoon ne yaa ngi ci biir julli gi da nga kàbbar ndox ñoom it boo ko gisee ci sa kanam nga avancé di mëdd kii boobu yéen yéen yéen boobu soo ak gul ñu sujjoot xam nga kon fekk na moom rakka ba boobu perte la waaye da ngay sujjoot dem ànd ak ñoom moom foo leen mën a fekk rek da ngay yéene kàbbar boo kàbbaree foo leen mën a fekk rek nga fekk leen fa waaye nag bu fekkee ne siggeendoo woon ak ñoom siggee woowoo ndoom ak ñoom rukkoo rek amuloo rakk boobu doo ko limaale mais bu fekkee da ngaa kàbbar rek bi nga daataan sëgg yi ñu siggi siggi bàyyi ci jógee ci seen i wóom doo am rakka boobu waaye da nga ko ànd ak ñoom bu fekkee ne nag rakka bu mujj bee léegi boo amee jamañ war a sujjóot imam du ko yenu yaa koy eh, sujjóotal sa bopp waaye su fekkee ànd nga ak ñoom siggee ci rukkoo bi moom loo jëme xam nga moom moom imaam mooy yenn jëme jëpp jëme ju maa moom imaam koy kii féeg wëccul farata wëccul farata nag booba rakka bu faatee day am fasoo rakka boobu yàqu na